mbégte ak banneex la ñu am yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci chaîne bii di Buzz 221 HD ni ñu koy defee saa rek di leen indil ay xibaar la ci gën a fës nag ñu daal di ñëw ci waxi Cheikh omor Anne nekkoon itam ministre de l'éducation ci nguuru Macky Sall moom nag daal di na yëkkati ay kaddu jëmale ko ci coow li nga xam ne nag ñu ngi fan yi jàlloon na fi ñuy wax ni leen ni ci ministère yi. dañ leen ay ñu génn li nga xam ne nag moom moo di réewum Sénégal waaye waaye itam ak lenn ci dése yi moom Cheikh Omar Anne ni ki démb ba mu daal di génnee moom nag daal dinay xam ne ne saa bëggee génn li nga xam ne nag moom moo di réewum Sénégal daf koy daal di def moom nag loolee rek moom mooy daal di nekk li nga xam ne moom moo di tontam ginnaaw bi nga xamee ne nag bi lépp information gisoon nañ ko muy circuler ci li nga xam ne moom moo di internet bi waral nag moom Cheikh Omar Anne ni tey ji la ci doog a ñëw di xamal ne moom nag saa bu bëggee génn li nga xam ne moom moo di Sénégal amul lenn lu ko mën a teree génn li nga xam ne nag moom moo di réew mi ba tax na kon nag ñu leen di fàttali ne ba tey jamono ji am na leen ci ay kilifa nguur yoo xam ne nag bokkoon nañu ca gouvernement bu Macky Sall waaye itam nekkoon ay DG ak ministre jamono ji bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar tere nañu leen ñu génn li nga xam ne nag moom moo di territoire bu Sénégal